jullit yi gannaaw bu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonente ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp day baal xaq ñëpp bokk yi ci mel ni réew mi ñuy wax New Zealand la benn waay fekk ay julli julli ak ak xetalam dóor ñi bañ daanu ba ne la siin mu delluwaat ci yeneen jumaa defar noonu waaye tew waaye ndaw ñoom ña seen bakkan des karaw bis boobee ci aljuma bi muy tey ji xam na ne jamono du ko fàtte li tax ma ne karaw adduna ak taayo bu adduna du ko fàtte mukk ci karaw lay mujj ñu koy waxante ba adduna ji waaye tey la loolu na mbokk yi soo digloo ci àdduna ñi ko ñaawul dañu bëreewuñu noonu te moo ne am na xew ko bu ko xaw a niru moo xam ne ñañ ko defoon ñoom dañoo tooñoo bañ bu bëri adduna bépp ànd mel ni adduna tukki waaye nag loolu tax jullit yi bàyyi dàkka yi du leen tax a bàyyi jumaa yi du leen tax di tudd yàlla ca kaw te eh waaye ndaw ñoom daal bokk yi jullit yi ñun ñëpp xam nañ dañuy faru gis yàlla àtte leen eh, wóor na leen ne ku ci teg tànkam fa mu ko war a teg bis bu faatu dikkee ak lu mu ko mën a fekk aljanna la jëm rawatina koo xam ne dugg na ci ñi ñu wax ne ku ca bokk jullit ba ne saa la fekk yow jot muy koo xam ne dañ ko bóom waaye mbokk yi rawatina koo xam ne daa bàyyi ay soxlaam bàyyi liggéeyam waaj ba jekk dem ca wuy ci woote suñu borom bam ne woon yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalaati min yowm aljumaati fasaw ila dikrillahi wa daru lbaya ñu jëfandikoo ndekete yoo keroog la ñuy mujj gisante ak seen waa kër ci sayir ñu mat a ñeenganoo ne bokk yi loolu dafa joxaat jullit yi fit daf leen a joxaat jom wan leen ne liñ nekk am na ñu néew ba lii nit mën a mënoon ne moom ci ay pexe mënut a weesu faat waaye ñaata jullit ñu nga war a jiituwaat ginnaaw jullit yu bari yu baree baree ba dana gën a fees suuf si ndax moom bu fekkee siiw na bëgg dootu nekk kuy dox soxlaam moom waaye dañuy ragal ñu àtte ko ni ñuy àttee yu dëng yëpp rek léeg-léeg nit faam taxaw fa mu ko faale waaye mbokk yi wax nañ ko ba tey suñ koy wax dañ naan kiñ jàpp ne moo ko faam waaye ëllëg yàlla dana ko àtte saala saa'ilun bi adaabin waaqi'in lil kaafiriina laysa lahu daafi'un min allahi dil ma'aarij تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة buñ la yàlla ko àtte am na yoo xam ne dañ naan ah loolu yëngu te yàlla xam yàlla xam ne moo wax loolu nee na am na lay laaj ba xam ni euh, bu fekkee laaj bi ñu ko borom ëllëg ñi def jëf ci mel yi nga xam ne bañ diine ak jullit yi rek tax ñu def loolu xam ne day yàgg lool. suñu dégg juróom fukki junni ak ci suñuy gis la benn bis di tolloo mu ne yonent bi lii nag fasbir sabran jamila muy leen rek innahum yarawnahu ba'idan ba'idan wa narahu qariban sooy wax allah dañ naan nit bu dikkagut léegi jàpp ko lu sori loo xam ne dañ ci mas a àgg mukk te nee na fi kanam suñu mi ngi nii bu dakkaloo kon boobu rafetuñ njort ci ne danañ ko àtt àtt ba sa wax ndax ñooy njëriñ kan su fekkee adduna bi daal siiw ñu ne lu way neex mën na koo jaamu lu way neex waaye waaye ñoom ñi nga xam ne yàlla daf leen wax ne inna diina inda llahi al-islaam ñu tànn ko wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-aaxirati mina al-xaasiriin ñu nangu ko ñoom bàyyi seeni soxla dem ñu fekk leen fa def leen nañ leen def nañu ko ñàkk rek. keroog ba ay mbokk jàkkaarloo ku nekk yow gànnaay haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim waaye ba pare ne am pas-pas nekkul de fa lladiina kafaru qutti'at lahum thiyaabun min naar qutti'at lahum thiyaabun min naarin yusabbu min fawqi ru'uusihim al-hamiim yus'alu bihi maa fi butuunihim wal juluud wa lahum maqaami'u min hadiid rawatina bokk yi weer yu mu am weer xam ne yàlla li bind moo wax ngeen bëggee wàññi ak yaata weer la yàlla nampal na leen ci buñ la ko laajee ñetti fukki weer bi am mu la doon am waaye weer na ci ñeenti weer yoo xam ne moom ni ko ñeenti weer yoo xam mooy weer bii benn la weeru wàllam weeru digg weeru tabaski ak am xarit weer yooyu bi lislaam ñëwagul ci euh, ceddo ya dañ ko joxoon cër kenn daaw ci duma doomam sax fa waxaale wuñ dëkk dëkk waxaale wuñ réewal réew bokk yi ci weeru benn ci weer yooyu nga xam ne ay ngëneelam kenn xamul lu toll ci la waajal bu xottee war a may suñu borom jàppewu ko dara weeru rajab mooy la mooy weer bi nga xam bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xanaa yëgu leen ne yéen a ngi ci rajab ne ah kay mu ne moo ne ci arba arbaatul xurum ci la bokk ci alquran wax inna iddata ashhuri inda allahi isnaa ashara shahran fi kitabillah yawma xalaqa as-samawati wal arda minha arbaatul xurum dalika diinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum yéen jullit yi na ngeen ko jox cër gaaw jaamu ci yàlla sëf ko woon fees dell ak jaamu yàlla mu yóbbaale leen ko ku ko ci mënul na téye boppam waaye rikk bu ca kenn def loo xam ne ëllëg si bi day mat baaraam sànni defe ne kenn ko def daal kay def ko la la xew weeru nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru waaye soo dëkkee ñu ne yàlla moom nangam rek am na ab joxan bu ca sama weer aw weeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ramadan ba nekk ba ca topp ñetteel la moom xeet bi ko bokk yàlla moom lépp waaye daf caa féete woo rajab joxoñ ca ay doxañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ne moom Shaaban moom daa bëgg rek ñu jox ko addiyee bàyyi ko ñëpp nanu rek lu mu laaj jox ko gërëm naa laaj lu ëpp weer muy ay bakkante dañ ko ak i alal bis am nit jël nañ seen alal jëpp jox ko ñenn ñi amul alal rek suñuy bakkan yi saa boo ko laajee jox ko kon séddewul ak xeet bi nga am daal ne lan la am xeet bépp ko ko xeet bi nag bokk yi tax ma ne woon jullit yi yëpp seen bopp ñoo ñeente lañ la ñuy soree bi daanaka duñ fekkante day dugg ci bis ñoom ba bis ba sori lool ba seen jant di bëgg ba seen jant di bëgg a so ñu soog dugg ci bis waaye teewul ñoo bokk fenn fu ñuy jëm bu ñuy jëm daal ne moom sallallahu alayhi wa sallam ku weer ku wóor ci rajab benn bis te yàlla rek tax yàlla warul na ko yàlla dara ko de waaye garanti ko ne da nga am sama ngërëm ngërëm suñu borom nag ku ko am mooy tikke bi la yóbbu aljanna yàlla ñu si yàlla boole loolu nag bu dee ku ci woon lañu bés gannaaw weeru koor bi moo gën ci bis ku woote ba la benn bés mën na caa dana caa amee ngërëmul suñu borom tax mooy dem am jàmm yàlla nañu ko jàll defal daal di wax ne ngëneelul rajab ni mu gën a weer ni ko yàlla tànn ci biir weer gënal ko ci weer ji des yëpp mu gënal ko ci mi ngi mel ne alxuraan ni mu gën a wax yëpp nekk ci woor benn bés loolu du baax la ba di ko wax waaye la ne dana mel ni ku wóor ñeent fukki at koor bu yàlla daan ne ku ci wóor ñaari bis moom moo xam mu tegale ak borom bañ ko tegale moom lam say amee moom waa asamaan ak waa suuf xool nañ xool xamuñu ñu dox ñu bàyyee ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masa romb ay armel dem dem mënta mu àgg suuf suuf soo see mu taxawoon dafa tekk ni suuf sëpp ñee nañ ko moroom suuf bi ñee nañ ko suuf soxla mu wax kam àndaloon sama baay ma ne ko yaa Rasulullah daa mel da ngay sotti ay xéwal de jooy mu ne ko wax ah, kay damaa dem dem mënu maa dem ndax armée yi dafa am moroom mu fii bu gën bu gën mu metti moo ndax ci nit ñi lañ waaye lu mu gaaw gaaw ñaan naa yàlla ba mu woyofal mbugal bi lool li ko tàmmalee dañuy dindi woyof ko faw dal ko ne xanaa xamoo ne ñii ñii mbugal mbugal mu metti nii ba tax mënatumaa dem bu fekkoon ne ku a woor benn bis ci rajab guddi rajab bi lenn kenn ci genn bi ci ay guddi mu taxaw koo naafil ba ba soxla dem tëri bu fekkoon ne kenn man mos na ko jaajëfal waxuñu ko moom waaye mën naa jàll jàllale mu ne ko ah wóor benn bis taxaw genn guddi yàlla dana ci musal nit ci mbugalum bàmmeel mu ne ko wallazi nafsi bi yadihi amul góor amul jigéen jullit bu góor ak jigéen góor jigéen ci yam ku ci woor benn bis ci rajab taxaw ci génn guddi naafi la ba sonn dem tëri ku ko def na ko wóor ne bu yàlla taxee yàlla bindal na ko buy àggal jaamu yàlla ah muy nangu ku woor bisam yépp taxaw guddi bi yépp kon bokk bokk yi weer woowu nga xam ne ci la yàlla dogal mu bokk ci weer yi yeneen weer yi nga xam ne yàlla ne ko ca xat damm ci la jullit yi dajati loolu li ñuy def ci adduna bi moom ñëpp ne ci parti moom xamuñu lu toll waaye tey moom rëcc na jàllaleekaay yi bañ jàllale ko moom ndax mënuñu mënut a dënd kon weer woowu ni mu tànne ak li ci nekk ci ay yoo xam ne kenn mënu ko am fanaan xotti nañ ci war ma jox bi def ci loolu jullit yooyu ñu mag a ñaanal bi si bàyyi ko daal yàlla ko fekk ci lu yàlla gërëm rek waaye mbiram dënt xalaat wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi l ardi muragaman kathiran wa saman wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu l-mawtu faqad waqaa ajruhu ala llah moom tax na dimbale daa am fi mu bëggoon a dem te mënuñu faa dem te jaaruñ ci buntu boobu te kenn du fi jëlee boppam mu yombalal leen des rek bëggoon suñu borom mu jeex ak ku neex ak ku ca àndal fii ba déwén fu jullit toll rek na ko ñaanal tus rek. ba yawmal xiyaam wute nag ni mu séentoo weer yi ni mu gën a lay weer yi wute naa wute na lool ak ni ko Cheikhul Khadim gàttaloo moom nag balaa jot teroo sant na ay bëy waaye bokk na sa yaa ngi may wax bushra lana qad ataana al-jud wal-karam lammaa ishtahalat alayna al-ashhur al-hurum حسن متابا مع الغفران في رجب ونرتجي في البواقي غاب من حرم nee na weer wi dañu taxaw mbégte dugg nañ ñun julli suñu xol yi dund ndax xam nañu lu ñu rawoon ca weeru koor ak mbokk yi rajab da ca topp am nañ xéewal suñu borom mooy fekke ba mën koo dabaax la ca dalli bu mooy bagage bu waay yoroon ci ay bàkkaar mu diisal ko te xam ne bu ngoy dénk war la ñu taw na ne yàlla bagage yi dañu ko dara weccel ma bare poids bu diis ci lu baax rek baaxee compte lay nekk kon bokk bokk yi yàllaa na moo wutale kii moom dafa doon yàkkaw rek bëgg mu ñëw ba mu gaaw feesal ko dal ak jàmm yàlla kee moom waajal ko yóbbu ci ay jullit aljanna ci loo xam ne bañ a ko war yàlla ko yàlla day nattu metti ak képp koo xam ne ak xolam set na nekkul gis daal nee nañ ba muy soxte kaw jullit yi xam ne mul magal la daa bës rek muy tax baaxaatari bi sotti gaa yi naaw di mi ngi xew ci dëkk bu ñuy wax Christ Coor foofu it ab jàng nga koy teg Christ Coor dëkk bi doon dund jullit yi doon dund seen pas-pas amuluñ frontière suñu war a jaamu yàlla suñ ko war a jaamu lu suuf sa sori sori seen kër ak seen dëkk bu ñu fa demee fu mii tegee seen xel dem ci tisbaar bu ca seen xel dem ci takkusaan bu jant seen xel dem ci bu fajar bi tey ñu julli di takk xibla nag léeg-léeg ay jafe-jafe gënoon di ko dàkk moo tax Serigne Assane Bousso ba mu ne cëpp Makka ànd ak Serigne Abdou Khadir moom eh, ne jàkk Kaaba gi ne xanaa du moom kii nga xam ne fu ne dàkk naa ko fa di ko seeral nit fu ne dàkk naa ko fa nekk dañuy fii jàkkaarloo moom joxoñ ba ne ko fu ne dàkk naa la nekkati yu yaa ngi fii bokk yi nag xol jullit buy jul buy dund lu jullit yëpp da ko war a yëg daa war ci moom te it saa bu jullit yi wooyee daa war a wuy ci ñi ngi séentu magalu Porokhane laalante na lool ak pas-pas bii ñuy waxtaanee bokk yi dañuy waxtaan ci soxna Jaara di ci wax ay jikko yu bare bare bare lépp di dëkk waaye dafa am lu ciy fàtte lekk soxna Diallo ak sëriñam ba ko fa yóbbu woon ak bokkam lañ àndaloon xanaa xam ne dañ leen a woon ngir ñu joxe seen i bakkaar moo leen taxaw na taxaw dëkk yëpp dëkkoon dem wuy ci woote suñu bopp ñaata ñaata def des fa ñeneen ñi suñuy gis war nañoo laaj ba xam pas-pas boobee ñoo ñu amoon ndax mi ngi dund ci ñi dem boroxaan wala déet loolu lu ko war na ko jàngal. pas-pas moo leen fa yóbbu woon jotewuñu woon ak kenn dara fi lañ dëkkoon ñii dëkk Bawol ñii dëkk Jolof kuy wooteel yàlla ndax nett li histoire dana sore dana gudd waaye na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon rek la ñu dañ leen bëggoon a kenn tuuti ci jàmm yàlla ba yàlla naan uzina lillazina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxriju min diyaarihim bi gayri xaq illa an yaqulu rabbuna allah loolu rek ka leen fi yóbbu woon kaay leen balaa lislaam xar fii ndax ñi ñu ko seqal moom bala seen a texee sotti lislaam dootu fi am fii moom ci suuf si te lislaam daa am sañ-sañ nekk fépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon fu keroog doomi suuf yàgg sax lislaam dana fa àgg doomi suuf bu taxawee ba am kàcce kàcce bu fa yàggee lislaam dana fa moo tax ñu woo ma mbal bind ko ba tax ma màggat na ba noppi mënut a yor jël Mamour Anta Sali ak mbokkam moom sëñ ma bàyyi beneen at mu ànd ak ñëw ñépp dem dénkaane li mu mën a dénkaane dénkaane li mu mën a dénkaane ak yim mën a dénkaane xam ne des waxam ne wala kenn am ne des wax waaye jàng la ko parce que boo nee ci yóbbu yóbbu leen toroxaan wala su ne ko jàngal sax xew na lu ñëwee ba xam ni ñu ne ko jënd sax ak jàngale ko jaral leen yàlla yàlla fa dégg ak fa te musal ñu seytaane rek bakkam te teg am nootu ba faw ndax jàngat bu njëkk bi rek nee nañ li ko waral mooy li nga xam ne dañuy wut am réew nan leen jullit yi ngay jullit yi laa rek mooy tax ñu bari bëgg ko jëfandikoo naaw waaye tuskare jàll na wàcc si ñoom ñëpp rek ak ñebe xalaatal ñebe laa xalaatal ñee moom ñu mën a ñeeral ndax ab jullit foofu rek lay wut faaw dem àndaata rek dañoo Cheikh Abdou Khadir Jula dee mu ne déedéet ab jullit du dee daa tekk ayib suñu borom laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima aataahum allahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min xalfihim alaa xawfun alayhim alaa xawfun alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi nicmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudiiu ajra almuminin alladina istajabu lillahi wa lirrasul min ba'di ma asaba wal qarh lilladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim alladina qala lahum nnas الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ورضوان وفضل ورضوان بل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم كلام moo tax suñu Abdou Khadir ne ab jullit bu teg aaya yi li mu tekki mooy ña doon jooy seeni néew ci Badr wala ci Uhud wala ci Hunayn wala ci yeneen xasawaat yi yeneen sirriyaat yi saraaya yàlla da leen daf leen ne ku ci daaru ba looy yëcc bañ suul ko yi bul jàpp ne faatu moom ak jaaxlem jeex yéen ñi fi ne kay lay xalaat ba xam ci lu leen di mujj yéen ak su ngeen di mujjal seytaane waaye moom la bëgg a am dañu ne ko ab jullit comme day faatu mooy day làqu rek waaye ni ci yéen ñi xew ay alxuraan waaye ku ne yëfa nag day dee du am trace bu bàyyi benn trace ci adduna bu ñu koy nett li lu dul am safar kese safar ma nga ko topp ba ba muy dem sa war joxam du si génn naa lu jaxam nag xaalidan fiha waaw dugg aljanna xaalidina fiha ak naaru jaxanam xaalidan fiha xaalidina ak xaalida am na wuute zalika résilence yàlla nu yàlla dimbali bañ mën a maandu rek ngeen di nekk si yoon rajo ak ña cay topp ak ña cay toppat yëpp te doon na mosul ci xale yi ak yàqulullah balaa rek ba sëñ bi